après nag justement ci laa leen laaj la ñu ma affaire dañ ko wàññi. ñeneen ñi ne déet. ñun ceeb lu ñu doon jëndee loolu la jëndee tey parce que dañoo xam tey la 24 lépp day waajeeku ceeb am na ñu jaay 500 am na ñu jaay 550 litre diwlin bu ñëw ne 1000 francs tey 1200 laa ko jëndee.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 mais jeunes yi bu ñu wàccee sur le marché liggéey ko pendant 2 mois 3 mois par force dañuy exécuter wàññi bi